baax te di leen siyaare di siyaare mbokki taalibe yëpp fu ñu mën a nekk ci àdduna bi di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu ah bu ngeen gisee image bi nag ak fii ñu taxaw da ngeen xam ni ñu ngi ci barab bu tedd di xelkom di barab boo xam ne barab bu sell la boo xam ne Serigne Saliou mbakke moo ko sosoon ngir yar ak jàng ak jàngale di barab bu tedd boo xam ne eh, suñ boroom defal na ko ci ndimbal ak tawféex ba eh, lu baree baree baree bare ci doomu aadama yi jaar nañu fi jële fi xam-xam waaye itam jële fi ab yar waaye itam jële fi ak njàmbaar eh, di leen siyaare bu baax waaye itam barab bi buñ ko waxee ni Xelcom di barabub Serigne Saliou ginnaaw bi nga xamee ni liggéey na fi liggéeyam bu rëy boobu da koo ak njabootam njabootam gi nag di wéyale loolu ndax walladina amanu wa tabaatuhum durriyatuhum bi imaanin alxaqna bihim durriyatihim te bañ a topp gaa yi waxoon ni inaa wajadna aba ana ala ummatin wa inna ala athaarihim muqtadun mu mel ni royteef yi benn bu nekk dafa am <clears throat> nees koy war a roye te eh, bañ booy roy da ngay royee ci ak eh, li nga xam ni mooy ak ngëm yàlla te mooy diine waaye nag mooy lislaam loolee royteef googee la njabootam bi jug eh, fa sëriñ saaliw seen wayjur wa teggi woon seen tànk ñu teg ko fa fii nag ñuy waxeek yéen mooy daarul alimul xabiir ci daara yi nga xam ni daara yi sëriñ saaliw la yi nekk ci xelkom ndax xelkom fukki daara la ak juróom fii mooy daara bi ñuy wax daara alimul xabir di daara numéro 14 fii nag caatam mi nga xam ni mooy cheikh mouhamadul mourtada ibnu sëriñ Saliou Mbacke moo ko féetewoo euh, di fi wéyal liggéey ba nga xam ne ni ma ko waxee léegi way juróom wu tedd wa doon na ko wéyal ci jàng ak jàngale ak yar ak liggéey ndax ñett yooyu moo taxoon sëñ bi sos ko tey ñett yooyu mooy yi nga xam ne moo composé doomu aadama ndax nit am xel la aw yaram ak xel mi faw nga tàggat ko ci ak jaam uh, ci xam-xam yaram mi faw nga tàggat ko ci liggéey waaye ruux gi tam faw nga tàggat ko ci jaam yàlla liggéey boobu itam Cheikh Mouhamadul Mourtada ibnu Serigne Saliou Mbacke ginnaaw bi nga xam ni jot na ci uh, liggéey bi fi ko Serigne Saliou bàyyi woon rek foofu la ko uh, fas yéenee teg fas foofu la fas yéenee jaar itam tey nag ginnaaw bi nga xam ne ànd naag dong yi nga xam ne ñoom la ko Sëriñ waa booleel ñu bay fi mbay mu sell mi. mu woo fi nga xam mu woo ñi nga xam ne ñooy ay taalibeem ay taalibeem yi nga xam ne ñoo aju ci moom at mu jot ñu ñeew buñ bàyyee ba noppi ñu baddali li ñuy wax baddali mooy bàcc gerte gi jëri ko roñ ko yóbbu ko ci daara yi ni ngeen ko gisee image yi mooy mbooloo mi ñëpp ñëw nañ fu nekk ci réew mi ba ci bitim réew fu nekk jóge na fa ci taalibe yi ñëw ngir ànd ak moom liggéey Sëñ Tuubaa bii nga xam ni liggéey la boo xam ne képp ku ci jëf euh, yonen li yonent bi waxoon sallallahu alayhi wa sallam ku liggéey ci toolub yàlla ba poussière ci wala nga ñàq ca yaram woowu sa suñ borom araamal na ci sawar Serigne Saliou tam bi barab bi barab bu ko fonkoon wax ci ay wax yu baree bare bari wax yu baree baree bari yoo xam ne euh, buñ ci jëlee benn rek doy na euh, ndax ci lu ci lu ci lu ci lu wér wax na ni su su su su su fekkoon ni jàpp na ni nit ñëpp liggéey nañ ci xelkom dana tëj daara yi ndax dafay mel ni loolu li mu ci jublu dafay mel ni kenn ku fi liggéey rek fii ba li des ci àdduna sa juróom-ñaar fukki sët wala téeméeri sët suñ ko fekkee sa liggéey bi nga xam ne liggéey nga ko fii ci tool yi suñ boroom mën na cee araamal sa sa yaram sawara ak képp koo xam ne takk na ci yow kon barab bi suñ Serigne Saliou Mbacké da ko sosoon rek euh, gàtt géttu nit ñi ci sawara te loolu yonent bi sallallahu alayhi wasallam wax na ko gaa yi baax yëpp wax ko muy muy loo xam ne lu wér la kon ni ngeen ko gisee liggéey bi sëriñ bi mi ngi ci jot bi sëriñ bi waaj soppeeb liggéey ci jeexitalu 2008 boobu ba léegi itam ba ca at mam ko jotee rek bay na ca at mam ko jotee itam taalibe yi ñëw nañu di liggéey li ñuy wax liggéeyum ngóob bi ba ginnaaw bi ñu ñëw di liggéey liggéeyum mbàcc bi kon tey jii ci édition bi nga xam ne mooy deux mille vingt deux mille vingt ci la bokki taalibe yi ñëw ngir ànd ak mu Serigne Mouhamadou Mourtada mu Serigne Saliou liggéey bi nga xam ne euh, liggéeyum njariñ la waaye liggéeyub euh, euh, xéewal la mu jagleelaat ko taalibe yi liggéey bi itam niñ ko niñ ko waxee léegi taalibe yi buñ ci jotee ndigal dañuy fenn ku nekk ci adduna bi kenn ku nekk la nga am sa ñaq ak sa njaboot sa sa sa lépp dootu ko fekke da nga bàyyi loo daan def lépp loo am itam nga ñëw indi ko Ndakaaru Mbuur Thiès eh, tuuba eh, Kaolack eh, ba Mbuur fépp rek ci àdduna bi danañ fa ñëw ngir ànd ak sëriñ bi liggéey bu ba yeggee sëriñ bi ñëw ñaanal leen tàggoog ñoom su ko defee li ci des mooy wàllu xéewal yeeg yooyu sëñ Abou Sarr ak ñoom sëñ Euh, Sidaat baaxum danañ ñëw indi ci yeneen ay leeral ci liggéey bi nu mu demee ak xéewal yi ni muy ñëwee ak niñ koy joxewaat ak mbokki taalibe yi kon euh, waa Tawfekh Production ñi ngi leen di nuyuwaat bu baax te sant ci taxawaay yi nga xam ni ñi ngeen koy ànd ak sëriñ bi ndax saa yu nekk rek yéen a ngi bàyyi seen ittee di ñëw lépp lu sëriñ bi xewle ngeen ñëw jël ko wan ko bokki taalibe yi nga xam ni jubluwuñ ci lenn lu dul euh, wax ni sëriñ bi moom fam nekk rek mooy fa way juróom wa nga xam ni euh, Cheikh Saliou Mbacke fa la nekkoon ngir dimbali jaam ngir xettali leen te loolu euh, lu am solo la kon ñu ngi leen ci sant bu baax di leen gërëm ngir bëgg doomu adama yi jariñu rek moo tax ngeen koy def kon ñu ngi leen ciy santaat bu baax di leen gërëm asalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakatuh la la